lii moo des ci entreprise Go Service bi féete woon foofe ca cité kër góor gi ginnaaw rek biñ leen fa jëlee sànq ñi yëgal gérant bi. dévolution bi fi ñu daf ñoo bett lool parce que ñun tooguñu fi si toogaay boo xamante ni daf ñoo neex suñu coobare bopp ñun buñ fi toogee yoon moo tax ñun ñu toog fi donc ñii ak ñoom ñi nekk ci yoon ñu bëgg ñu fay génne. mais bi ñu fi bëggee génne ñun dafa am ordonnance boo tax boo tax ñun ñu toog fi. jotuma benn këyit maa fi nekk gérant jotuma benn këyit buy wane naka yow da nga war a génn. lu ëpp ñaari fukki nit ñàkk nañ ci seen liggéey sans compter bagage yu bëri yi fa yàqu. kenn mënu ko estimer fu mu toll suñu bureau yeeg suñu machine yeeg yàq nañ. démolir na ñun amuñu temps génne lii ngay gis nii rek lañ fi jot a rawale. plus de vingt personnes ñu ngi fi di liggéey garage mécanique la tout ce qui est dañ koy def am restaurant ba aussi tamit dañu am ay abonnés. kii di gérant entreprise bi di Pape Gora Gueye moo ngi ñuy xamal ni rek seen nekkinu foofu lu dëppoo ak yoon ce qui veut dire que li ni mel jaay doole la. këyit bii laa yor te këyit bi suma avocat moo ko yor su suma avocat moo ma ko jox ne ma téye ko ku fi ñëw tamit mënul ci yow dara parce que mënul la fi génne. parce que procédure bi ngi nii donc le neuf bii rek dañu war a dem ak ñoom appel. bi ñu ñëwee aussi wan nañ leen kayit bi mais ñoom ne du ñu laal kayit duñ ko xool tey duñ ko xool suba. ci loolu ñu ngi ñaax yoon mu def liggéeyam. donc loolu yëpp moo ci nekk mais dëkk bi dañu yaakaar ne dëkk yoon la parce que lii nag moom jaay doole la parce que yow bu président cour d'appel bu Dakar joxe ordonnance. na ordonnance bi nga yow bul ko exécuter yow nga ñëw exécuter ko ci doole ak force loolu fi ngay def teguloo ko fenn. Go Service nekk entreprise mécanique biñ fa samp depuis atum 2016 tey ñu jëlee leen foofu ci li nga xamante ni bu ñu sukkandikoo ci kàddu gérant bi ay naxe mbaay la ci loolu ñoom ñu ngi ñaax yoon mu def li war.